بعناية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن بفضل والإحسان تفسير مصطفى ميغا خامني مو وارال زيارة بي تاي موي بروم زيارة بي زيارة بي كي ndigal la جوتي jotee ndigal li doomu sëriñam muy xalifatu xalifa xalifa ñes ñu daan ko wax xalifa Mouhamadou Aminata loolu la ko waa Fuuta gën a xamee kooku nag mooy taawu alhaji Abdullahi ñes alhaji Abdullahi ñes boobu nag moo jàngal tafsir Moustapha alhaji Abdullahi ñes boobu moo jut xalifa ñes moo jut Cheikh Ibrahima ñes kon moom tafsir Moustapha mi mën naa ne la doom la ci Seydil Hadji Abdoulaye Niass muy doomu ruuxu waaye doom la mu nekk it taalibi ci Seydil Hadji Abdoulaye nges kon bu de bu demee ci côté doom moo seex Ba ay doomu bàyyi luñ ci côté ruuxu ak nuuru kon gannaaw Seydil Hadji Abdoulaye nges ndax génn ak Seyd àddina Seydil Hadji Abdoulaye Niass mi nga xam ne moo jut Baye Niass jut Mamadou Aminata moom booba mi ngi ci daara gi gannaaw ba mu génne àddina nag mu tegaat menn at lay doog a fii ci Fuuta ba mu ñibbisee ci fii ci Fuuta it ñoo ñu ne nag sa xam-xam bu bëri bi yëpp eh, ña nga fa yore mag mu baax ku yàlla may muy tafsiru Balla boo demee na nga nekk moom nekkal aw loxam nekkal tànkam nekkal bëtam bul nangoo def dara ndare nekkal ci moom waaye yuy tafsiru Balla yónni nuñ ci yow ndaw loo xam ne benn hubbitib diine lu jëm ci diine bu ko bu ko jéem a hubbi ndare ndare ci teewaayam yi ñëw nii suñu mag la ñu dox Ibrahima Thiam gannaaw tey xalifa bii toog nii gannaaw ka topp ci moom muy ñu di ko wax beneen mag di ko wax xalifa Thiam moom it tey moom mii moo topp ci moom muy troisième yàlla daggalee na ko ci rawda bi luñ ko fekk mu ngi def ay ziyaaram gëm hit comme lan ma laaj nii gëm loolu moo waral moom ci yoor yoor ba léegi mu toog fi di déeyanteeg maamam soxla yam yor ak yéen ko dis pour mu dis ko gor gi kon ma jox micro bi rek. amna yu bëri yo xamne yi jamono bi nga xamne ki nga xamne moy mooy khalifa ab serignam mom sayyid al Hadji abdullah nyas al Kabir di bay bàyyi al Hadji muhammad mi nga xamne mo jut Ahmed Khalifa ak sayyid Lamine nyas ak Cheikh al Islam al Hadji Ibrahim sen bajur kookoy sëriñam. moo ko El ibrahim nyas ño bok jangandor ño ñoo ben nek lépp lu ñuy def ñom ño ko defandor mook saaxal islam alaaji ibrahim bi nga xamee ne yàlla dogal na mu nekk fa ba yàlla dogal lépp luñ doon am nga xam ne Cheikh El Hadj Abdoulaye Niass bi muy gédd moom ay wajuram bi mu jàng dem nañ jëli ko pour mu dellu bi ñëwee tàggu Seydi El Hadj Abdoulaye na bëgg mu ñibbi si Seydi El ne na ma muñal am luy xew ci kër gi te bëgg naa mu fekkee ko gannaaw loolu mu toog fa at. ci biir at boobu ci la Seex Alxaaji Abdoulaye Niass génn àddina guddi gi nga xamee ne Seydi Alxaaji Abdoulaye Niass mi ngi fanaan na ëllëg ci àllarba ji lay génn àddina juróom-ñaari nit ñi nga xam ne ñoom la bokk fanaan ak maam Tafsir Moustapha ci la bokk waaw maam Tafsir Moustapha ci la bokk nga xam ne ñi ngi ko dégg mi ngi naan yaa Cheikh Tidiane ishabni ila makanika ila makanika alxaas wa axlif fi awlaadi yow cheikh yóbbu ma fi nga nekk yaag sa maam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma nekk ak yéen waaye nag na nga des ak njaboot gi mu fanaan ak moom ba bat set xam yee ko Seydil Hadji Abdoulaye Niass digal na ko def wax ko it na ko bu demee ba heure danaa génn àddina dana fekk yéen a ngi tiim kaamelu alquran di ko jàng taalib bi yëpp dinañ sànni seen seen jukki yi yow bul sànni dajaleel jukki yëpp waaw yàlla mu daal di tàggoo Cheikh Baye ñëw ci moom El Hadj Ibrahim na ko Tafsir Moustapha mu ne waaw mu ne ko tey de amatoo fi sëriñ doomu sëriñ nga fi am. lépp loo xam ne taalibe war na koo mën a am ci sëriñ wala wajjun mën na koo am ci doom am nga ko ci Seydil Hadji Abdallah tey de moom moo la fiy dëj mu ne ko baax na mu ñëw ay wajuram ñëwaat jël si ko mu ñëw tàggoo pour mu war a dellu si Fuuta léegi. xalifatul hajji Mouhamed mi nga xam ne mooy magu njaboot ak alaaji Abdoulaye na ko nag may dama la soxla nga gumbee ma at ci sama xilaafa bu at bee ma tee nag fekk ñoom ñoo ne ko fuuta réewam halpulaar la halpulaar xëj na wëloor bii cofeel gii nit ñi di am ci ci sëriñ ñu xam martaba boobu ndax ña ngi ko jàppee comme Cheikh Omar Fouti bi mu fi ñëwee toppatoo gi des ba Cheikh Omar mujj génn réew mi ñoo ne ko bu doon suñ sago am na dëkk bu ñuy wax Gosaas mu ngi nekk diggante Kaolack ak Dakar ñu ne ko nun foofu lañ bëgg nga nekk fa bu boobaa lépp lu sëriñ ji am ci teraangay àddina da nga ko am waaye nag ay wajuram soxla ko te moom moo nekkoon taaw bi mu taggu sëriñam nag gannaaw bi moom ati at ci la ñibbisi biim ñibbisee ci fonk goo xam ne fonkoon na ko Seydil Hadji Abdallah njaboot ak Seydil Hadji Abdallah lépp loo xam ne tagg nañ ko yónnante bi rek daf ne rus man Tafsir Moustapha def lu mel noonu ndax bu boobaa day mel ni damay jéem a tolloo ak sama njabootak sëriñ ci kersam moo tax bi mu dikkee Fuuta yi nanguwut a def dara nanguwut a def gàmmu ndax dafa ñëw fekk fi benn mu xaddam bu Cheikh Alhaji Abdallah bu ñuy wax tafsiru Ball moo dëkk moo ko tafsir Ball bii muy ñëw ñoom njaboot ak Alhaji Abdallah na ko boo demee dang fa fekk taalibeeb tafsiru Ball borom ak may la mboolem Fuuta bu mu daj kookoo doxoon seen sëriñ ñu di ko wax tafsir bala moo njëkk a gàmm dalal ma la bakkil ba ndar moo fi njëkk def gàmm léegi nag ñu ne boo demee boo ko fa fekkee liñ bëgg mooy na nekk ay tànkam na nga nekk loxoom na nga nekk aw làmminam ndax sa xam-xam bi bu ànd ak wilaayam gi loo leen bëgg ci fuuta da ngeen ko xam tafsir balla ñoo ne ko tafsir Moustapha na nekk saw làmmin na nekk sa tànk na nekk sa lépp bul def dara ndar ba danga cee waxtaan ak tafsiru mustafa mu dund ak tafsiru Balla ba yàlla dogal tafsiru Balla génn àddina léegi heure bu siyaara jote mu jóge fi dem Kaolack ba benn ziyaara mu ñëw fekk fa xalifatul haaji Mouhamed def ak moom la muy def ak moom ba nga xam ne desul lu mooy tàggoo xalifatul haaji Mouhamed xook ci jullit ci subaar ne dama bëgg a tey mboolem taalibi yi fi ne ak man ci sama bopp ak mboolem njaboot gi nga jiiteenu waxtu ci subaar ndax won nañ ma ci hadratul ilahiyya ne képp ku topp ci yow génn julli yaramam haram na safara